Modou Ba di wax na jamono ji nag xaalis bu takku bi nga xam ne daan na koy amee nag ginnaaw ka nga xam ne rek moom la président Sall fas ne jiital mu nekk li nga xam ne rek moo di candidat benn Bokk Yaakaar ñi nga xam ne rek ñoo di askanu Sénégal nag daal di jommi jaaxle lool ca xaalis ba nga xam ne kii di Amadou Ba daan na koy amee ay kër yu rafet yoo xam ne foo takk weesu nu ko ak yaatuwaay baak lépp ca biir tax rek ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yi nag génne ab vidéo bu yàgg-yàgg di ko partager ci li nga xam ne rek moo ci internet bi mu di rek kër Amadou Ba mi nga xam ne jamono ji nag moo nekk premier ministre fii ci euh, Sénégal tax ñi nga xam ne rek ñoo di askanu Sénégal nag euh, di lañ bët ay mbiram di xool ba xam xaalis ba nga xam ne jamono ji nag daan nañ ko gis mu am ko lool fan la ko daal di euh, jëlee ndax kat jamono ji ñi nga xam ne rek ñoo jege Macky Sall nag dañuy gis rek saa bu nekk rek ñoom nag seen am am dafay takk lool mu nekk nag loo xam ne jaaxal na ñu bëri ci askanu Sénégal Sénégal waaye nag am ñenn si ñoo xam ne rek daan nañu jàpp ne kat lii daal wërsëg la boo xam ne rek yàlla moo leen ko jox parce que nag wërsëg tolluwul ku nekk nag ak sa am-am loolee nag am ñoo xam ne rek dañ ko jàppee la nga xam ne rek moo di ñàkk a maandu parce que nag dem ci kër jàmbur di ko vidéo loolee nekk na loo xam ne jaadiwul benn yoon moom Amadou Ba ginnaaw vidéo bi nga xam ne jamono ji nag ñu ngi koy partagé fu nekk di ko waxtaanee mu di rek këram googee nga xam ne daan na yaatu lool te rafet lool tax rek ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi nag di laaj laaj ba xam daal xaalis boobee daal fan la ko Amadou Ba war a jëlee